réew de bu neexee rek neex na paax ba kumba xaw ma nan eh, yéen xanaa xamu leen ne indiscipliné jarul jaay ci réew mi jaru fii dara gratuite la dañ la koy may le ministère Tidiane Dièye xam nga ne la woon noonu woon na moo tax nga jàkkaarloog moom di waxeek moom nii ngay waxeek moom yow yaa réew yaa yabaate comment ça fait yow bi nga xam ne APR nga nekkoon l'ex pouvoir qui était là pendant 12 ans mënuñu leen defaral. seen assainissement ba tey ndox di ñëw benn taw benn toqum taw bi mu fi tawagul ngeen ne da ngeen fees bu xaw ma ñaatam plus de cent maisons yaa mën a fen nga daa ngeen baal ma ci kàddu yaa mën a meew parce que nag yéen xamu leen buur saay bu tëgg sa bëm na ngeen xam et tu te permets nga taxaw naan le ministre bu déwénee boo fi ñëwaatee nga jox la sama bakkan yow tapet nga buqat nga jaayagoo sa bakkan yow mosoo jaay sa bakkan te sa askan jaralu la jaay sa bakkan bu fekkoon ne yow sa askan euh, foofu nga dëkk noonu sa gox googu daf la ñor au point ngay jaay sa bakkan pourquoi pas nga futeeku pourquoi pas ba nga nekkee ci Macky Sall ngeen yor 12 ans réew mi yor ay milliards de soi-disant milliards yoo xam ne da ko def ci lan assainissement kenn gisu ko ba ngeen fi ñëwee ba tey 2012 ba tey saa yu tawee sénégalais yi bëgg a dee le nouveau régime qui est xaw ma ñaata jours 3 mois et quelques lañ fi defagul 3 mois presque hmm? ñu salaam nga ne yow yaa leen di ménager noonu naan leen boo leen fi ñëwee déwén ndox mi nekk fii ma jaay leen seen bakkat yow doo jaay dara ndax tàkkat nga boo amoon fulla am fayda am tuuti patriotisme ci sa ci sa deret boobu muy daw bon yow ba nga nekkee ak parti au pouvoir Macky Sall ñu yor suñu ay milliards di saax saaxee bu la sa gox ñoroon da ngay sa bakkan foofu la jaay sa bakkan amee woon solo foofu nga waree woon taxaw sa askan foofu nga waroon taxaw les soi-disant milliards yi nga xam ne dañ ko def ci arrondissement nga waroon ci taxaw nag ñu defal ci sa gox ba mu baax bu dee dama jàpp ne yéen liggéey ngeen mais le nouveau régime kii doog a ñëw même pas trois nga bëgg yow mu liggéey loo xam ne yow mi fi toog 12 ans avec tous les pouvoirs yi ngeen yoroon fii ci réew mi et nos milliards ngeen waroon def seen liggéey deful leen ko yow nga bokkoon foofu tey ci to permet nga ne yow yaay waaw ma jox na sama bakkan boo leen fi ñëwaatee doo jox sa bakkan tubaab fakkaa la macha allah parce que le régime actuel man gëm naa ne ak les bonnes volontés ñi nga xam ne meluñ ni yow des jeunes motivés yoo xam ne bëgg nañ seen gox fonk nañ seen gox je suis sûr et certain que d'ici demain comme ni ñu koy mobiliser chaque dimanche chaque samedi nekk ci seen ay gox am jom yox seen i peel ak i bale di nettoyer aussi di sensibiliser seen population ci nettoyage ci salte bi ci mbalit yi ñuy def ci kano yi ci regard yi bouché ay xale say moroom yu am jom di simeeku ñëw nettoyé ko ba mu set parce que tout simplement ay patriotes lañu dañoo bëgg seen réew dañoo fonk seen réew dañu xam ne suuf si sotee ko ci canalisation yeeg mbuus yeeg yu bon yooyu mooy fat loolooy waral inondation yi problème assainissement nag ci sais bel et bien que le nouveau gouvernement qui est là en tout cas de Diomaye et de Sonko incha allahu rabbi dinañ ko régler yow xam nga dinañ ko régler bu baax moo tax nga génn di jaay réew seen arrogance bi arrêté leen ko c'est pas parce que le régime qui est là dafa am considération ci ay citoyens parce que looloo ko war dafa jox cër nit ñi que vous ces petits bonavins là vous allez vous permettre toog ci télé yi wala ci seen ay kii ñu di di wax ak ñoom comme saa arrêté leen jàmm ji ñu leen di woo jàmm ji leen gouvernement bi di woo wuyu leen ngeen xam ne ku nekk di ci gañe dara wane leen jàmm yar ak teggin te ne nga def sa participation ci concernant assainissement bi set setal bi ku ci nekk sa gox yaa ko mën a setal c'est vrai que dafa am loo xam ne gouvernement bi moo ko mën mais ku ne war nga am tay jom ak fulla ak fayda ak yërëm sa askan lu toll ni boo dee jeune nekk ci koñ gis nga bale boobu ngay xëcc ak peel boobu di am suuf si di sotti fale yow maire bi dëkk si biir kër gi nga fexe ba canal boobu ngay dem di tuuri ndox nga tuur fa ndox mu set wicc bu amul mbuus amul benn salte parce que canal yooyu ngeen di boucher ci mbedd bi mooy waral bu taw amee ndox mi du dan bu fattee ndox mi day dellu si waat dugg ci seen kër sonal leen ngeen jóg di naan gouvernement bi gouvernement bi c'est vrai gouvernement bi ngeen mën a accuser parce que moom moo fi nekk mais ku ci ne bi nag ak réewande bi jaru fi ñi nekk fii xam nga ne ak ñi fi nekkoon duñu benn ñàkkuñu fulla ñàkkuñu fayda amuñu temps bu ñu toog di tontante moo tax ci te permet ngay waxee ñoom nii ngay waxee ak am patriotisme bu la tollu nga war a joxe sa bakkan futteekul ni ma la gisee nii de xale lu góor gu mat sëkk nga futteekul la fatt foofu léegi léegi nga fottandi ko bu fekkee nag problème assainissement la vraiment dis-toi que leen ñu mayee temps bi ko war gars yi ciy liggéey ñu nag du ñu def ay liggéeyu similaire waaw ñu ngi ne ñu xool ñu teg seen ay matériel waaye on a fait on a financé un milliard tel tel dañuy defar fii bu gars yi demee ngeen dajale dem déclaré cinq cent euh, euh, un milliard joxe cinq cent millions xam nañ lépp dañu dudd wax lépp parce que dafa am ñu ñuy bañ te réew mii jàmm lañ fi bëgg te jàmm moo fi am incha allah rien de personne wax ni ci réew mii mënu indi lu dul jàmm le gouvernement sortant boo amee koy accuser joxoñ ko baaraam nga def ko ci ginnaaw noonu bu ko def ci kanam ndax ñu ngi ci kanam ñee nii ñii laa bëgg gis nga def ko réglé leen wuyu leen nit ñi ci jàmm ci ñu leen di woo wuyu leen nit ñi ci jàmm ci yar gi ak teggin gi ñu leen di woo bii ak bee bokkul de bii ak bee bokkul parce que duñ fi ne di la menacer naan dañ lay teg sa kër jël si la ñii duñu teg kenn injustement ñu dóor kenn du ñu saaga kenn du la topp di la suivre di la yàqal da nekk jeune nekk sa yoon na la réew mi ñor bu tee en sa xol wala ngay defee naka su dul noonu yéen xam ngeen ne bu baax ki ñëwoon ak ñi tey duñu benn donc bàyyi leen seen arrogance bii ak seen yii ngeen dellu si xam nañ lépp yéen a ngi ci dellu si leen ngeen tey vous êtes ñëpp bokk yem réew ñoo ko bokk nga bokk bokk PASTEF ak bokk feneen ñoo ci bokk yem ku ci ne intérêt réew war a ñor bu boo gisee nen da ngay naan nga fi nen a ngi fi de kenn tojogu ko kenn omelette gu ko kenn baxalagu ko nen a ngi fi donc nañu tey dal buñ ko omelette ñëpp bokk bu ñu ko baxalee ñëpp bokk ñu bokk ànd te xam te ko arrêté ça arrêté ah pourquoi yi ah ah bàyyi naa ko de waaye ah ah <laughs> waa baax na ndànk mon frère ndànk wasalaam wasalaam ñu ngay nootu sax na ma yàlla baal ay di